no jangate allègement yi euh, transport bi école bi tamit euh, ñu ngi allégé mais nee duñu jangi lan mo ci sa gis-gis waaw gis-gis bu mu si bu mu si am moy d'abord il faut que ñu leeral né dafa am première décision yu président de la république jël yo xamantene ne mën naa wax attitude de suiviste lañ ci am maanaam dañ ci top parce que mbirum feebar la bo xamantene ne yëngal na réew yu bëree bëri bëri au mu Sénégal lu ñu mënoon am ci confiance moi niveau d'information bu état am te ñun ñi di sénégalais lambda amuñu ko motax quand le président de la République dit que l'heure est grave ñun dañuy japp ci ça si que l'heure est grave le président a eu chaud nous avons eu chaud ci ça. si maanaam tey su ma ñun mun naa wax sax sénégalais yépp la parce que danaka sénégalais yi euh, mesures yi ñu wax na ne jaaduwul wala d'accord parce que ñu ñëpp dañoo bëggoon mucc donc nañu xam ne ne loolu mooy lu njëkk bañ demee ba si biir dañu nekk lu ñuy wax force de proposition maanaam gis nañ ne bëri na ay gàllankoor yoo xamante ne ne am na ci décision yu ñuy jël nar na indi ay problème te gis problème yooyu la ñu gis dama jàpp ne première décision yu président de la république mënul woon doon lu dul ay décision yu njëkk genre situation intermédiaire la situation boo xamante ne ne soit nga évoluer ci kanam physiquement ñu xam na ne maladie bi la toll wala nga dellu ginnaaw desserrer complètement tenir compte de tes réalités économiques de tes réalités pour daal di dem ci assouplissement ñaar yooyu rek moo amoon sa à dire que position la boo xam ne nag mbir am na jël nga position mesure nëgëndiku parce que xamoo tan day évoluer mais dama jàpp ne ne ba ñu demee ba doxal tuuti gis nañ ne courbe virus bi nu partout sociétés yu bëri sax dañu wax mystère la lu fekk tey Sénégal wala Afrique nu nu ñu jàppee woon mbir yi nu muy demee demeewul noonu soo gisee sax lu mel ni États-Unis ñu ñoo commencé ndoo daanaka mais lu ñu am ci perte en vie humaine amu ko Sénégal loolu boobu amee si saa si nga war a évaluer nag pour mën nag léegi xool ndax da nga war a dem confinement wala danga nga war a assouplir te jàpp naa ne ne bokk naa suñu bind ne confinement moom méngoowul avec nos réalités socio économique méngoo avec suñu structure économie parce que tey soo jëlee quatre-vingt-dix pour cent quatre-vingt-dix-sept pour cent de notre euh, population active ay nit lañ ñoo xamante ne secteur informel la ñu nekk donc suñu nekkee ay impacté mënoo leen directement da ngay am difficulté pour toucher donc beneen solution rek moom mooy assouplissement nga dindi complètement nga desserrer le tout mais le plus important je jàpp ne ne moom le ñu def tey mais trois mois après entre temps am na certes des mesures d'assouplissement, nank nank, mais encore une fois dañ ko def moment boo xamante ne ne loolu lay wax lajj bu maga maga. mag a mag li tax ma tuddee ko lajj mooy crise su amee sénégalais yi ñu déggal la ñëpp pour jël ay mesures pour ànd si ak yow moment boobu nga mën a jël ay mesures yoo xam ne population yi dinañ ci ànd ak yow population yi dinañ ko respecté doo xaar ba léegi nga xamante ne ne ñu wax ko ñu bañ ko wax ñu bëri jàpp nañ na pression moo tax gouvernement bi daal di bàyyi lu mu doon def su dee pression moo tax mu bàyyi ko nag lu muy indi conséquence parce que pour ñu fàtte ne feebar bu mel ni nga xam ne pandémie la sénégalais yi si boppam dañ si am rôle buñ ñu siy joué individuellement ku si ne am na solo boo xamante ne ne euh, am na solo tey ñu xam ne ne sénégalais yooyu tey war nañ leen mën a impliqué de sorte que ñoom ñu jàpp ci mbir mi ba mbir mi mën a changé su dee ñoom impliqué wuñ leen mu def lu dul mesure état loolu échec lay doon te loolu foofu la ñu toll fu mu toll dafa jàpp na leen ne dès le début ba ñu évaluer xam na ne lii courbe yi bokkul waroon nañu dem ci assouplissement léegi nag ñu mettre l'accent sur la distanciation physique ñu mettre l'accent sur le port de masque tey su ñu waxee mbirum distanciation physique port de masque depuis pas mal de temps mu ngi ci discours mu ngi ci discours ministre yi nañ ñu wax ban ban pour cent la ñu jël ban koppar la ñu jël ak ban effort la ñu jël tey pour fournir les populations ay masques su dee politique la boo xam ne ne c'est un maillon central bu nekk bu leera leer a boo xam ne dina tax di endiguer virus bi dañ ciy jël ay dispositions yu leer nañ fexe ba population yi am ay masques en pagaille distanciation physique bi nga fexe am une présence dissuasive mais loolu da doon yomb au début nga xamante ne ba ñu waxee dem leen tëdd vingt heures nit ñi dañoo tëdd 20 heures c'est vrai que am na quelques jeunes yu yu bëggoon génn mais après duggaan lañ mu jeex ba ñu waxee dañuy arrêté def confinement territorial ñi dañoo respecté confinement territorial période boobu nga mënoon joxe ay mesures yi nit ñi mën a respecté mais du doon période boo xamante nit ñi dañuy jàpp ne ne yaa ngi pression te damay wax ne ne fu mu mujjee tey mooy ñu wax ko ñu bañ ko wax tey sénégalais yi bëri na si ñoom ñemewu ma wax pourcentage bëri na si ñoom ñu gëmul ne virus bi am na parce que gis nañ ne euh, état bi nekk na ci ay tâtonnement tey mu def li suba mu def lële ñu teg ko pression mu bàyyi donc finalement am na ñoo xam ne ñu ne virus bi am na te loolu danger la ñuy mettre ñu ñëpp bu ñu fàttali ne su dee tey virus bi

fii ma dëkk bi yàgg naa taxaw sama balcon di xool di xool rek nit ñi mais temps yi yëpp dama seetlu ne solatuñu sax masque nit ñi solatuñu sax masque c'est-à-dire que tey dañoo bàyyi seen loxo complètement en tout cas ñu bëri la majorité lu muy tekki mooy virus bi mu ngi fi ñu ngi wax waxu pic mais je suis désolé pic soo koy wax day fekk nga teg une stratégie et d'une manière scientifique nga mën a wax pic am na en France bañ ñu defee confinement def deux mois xam nañ ne kër yi amul benn feebar

Euh, taxawaay boo xamantene ne malheureusement découragé na population yu bëri tax na ba dugal fi yenn population yi te virus bi virus bi nekk fi te virus bi mu ngi fi foofu laay jeexalee pour wax ne tey revient aux populations ñu gën a taxawaat parce que nag di nga mesure état yi ni tax boobu ba léegi ñu doon insister dafay am ay incidence parce que bu ñu fàttale yàlla l'après Covid tey ay milliards yi milliards lañ dugal fi Covid bi te milliards yi su bëri ay décision yu ñu jël la yoo xam ne mujjeewul fenn gis nañ lu mu demee lu mel ni mbirum entrée dugg école bi gis nga luñ fi dépensé ci ay xaalis bu leen du bu leen dem bu leen dem ñu ne dañuy dem presque ñëpp wax nañ ne c'est pas possible ils sont quand même ils sont partis jël la décision boo xam ne ñëpp xamoon nañ ko à l'avance tu as l'impression même que dañuy engagé aussi ay voies rien que pour sortir des finances rien que pour dépenser finalement dafay fulu ci bopp nit ñi tey nag dama jàpp na ne ne population yi il faut que ñu ñu ñu gën a continuer conscientisation coronavirus est là il faut que nous jàpp ne le Sénégal est encore plus que jamais menacé Sur nous avons quelques cas de mesures waxantuma y a une responsabilité individuelle boo xamante ne war le sénégalais bu ne même si dee nous dafa lajj nañu continuer jël suñu mesure pour nos proches pour nos vies parce que virus est mu ngi un signe suñu ravage. dina def ay merci merci beaucoup Thierno. Euh, bon. Euh, une question sinon on allait se. Euh, man question a ah, allègement non man pour man dara ne solution intermédiaire la il fallait évoluer soit vers le confinement ou vers l'assouplissement j'étais pour l'assouplissement mais deux mois avant maanaam moment bi nga xam ne ne population yi pare nañu pour respecter lépp lu état di wax moment boobu nga ko mënoon def ànd ak ay mesures d'accompagnement def de l'argent mettre jël benn fonds dugal ko ci ay masques jël possibilité jox nos force de sécurité et de défense ñu am une présence dissuasive ci marché yi et cetera en plus ñu médias yi taxawee woon di conscientiser sénégalais yi ñu gën a mën a yeewu xam ne virus baa ngi fi dañ leen bàyyi ñu dem liggéey rek waaye virus baa ngi fi mais tey def nañ deux mois après mais malheureusement trois mois du mois après mais trois mois après nit ne bëri gëmatuñu ñi bàyyi dañu jël seen i mesures donc c'est une situation boo xamante ne mun wax médecin après la mort et surtout ça donne l'impression que ça s'est fait suite à une pression des populations Nous, nous, si gën a doy parce que nous génne ce qu'on appelle la faiblesse de l'État Nous, madame, nous dafa nous devoir doy waar dañ jàpp ne moment bii ñu toll nga xam dañ jox État dañ soxla État bu am force État bu am doole État bo xamante anticiper sur les choses parce que mënoo tëj ay nit pendant trois mois te mënoo xalaat ne dañu révolté wu mënul nekk donc nous nga xam ne ne nu notre structure économique demee forcément soo jëlee yéen tu n'as pas les moyens de les désintéresser tu n'as pas les moyens de les compenser tu ne peux pas sanctionner parce que mon l'effectif qu'il faut pour le faire mais il fallait anticiper sur ça depuis le début c'est clair defe naa li mu li mu li mu laaj euh, euh, li buuba laaj. merci beaucoup Thierno ah. man tu me système. non non je te sors pas du système oh, tu tu tu veux poser une question à Thierno. ok pour intervenir alors Papis. donc sur l'appréciation si c'est pour rebondir li Thierno wax nee na le timing de l'allègement n'est pas bon il parle même de médecins après la mort. non man je veux rebondir si euh, li nga wax.